nataal fanweer ak juróom nit ñépp dinañu dee yéesu moo ko wax te moom nee na man maay ndekkite li te ku gëm ci man dinga dund bu fekkee sax dee na dina dund moo tax góor yépp jigéen ñépp ak xale yépp ñi gëm ci yeesu dinañ dem asamaan bu ñu dee loolu yéesoo ko dige ci asamaan kenn du jooy kenn du fa am ay mettit kenn du xiif kenn du mar jàmm rekk ak mbég moo fay am foofooy dëkkuwaay yàlla te lépp fa rafet te baax bu fekkee benn gaayi kirist génn na àdduna ay mbokkam yi bokk ci gaayi kirist yépp dañoo war a am mbég te di woy di màggal yàlla comme nu ñu koy gisee ci nataal bi kenn warul am tiis ndaxte gaayi kirist boobu borom bi la fekki waaye bu fekkee ku bokkul ci gaayi kirist yi dee na tiis bu rëy rëy rëy mooy am ndaxte nu ñu ko jànge ndaxte kooku bokkul ci nguuru yàlla waaye kooku safara la dem foofu nga xam ne dina fa am yeeyu ak i jooy yu metti bu fekkee yow bokkoo ci gaayi kirist yi ndax buggoo ko doon léegi